waaw kontaan rek ci respect bi ngeen ma jox ak honneur bi ngeen ma jox ba ma woleen ku ne bàyyi yitteem ñëw tey nag bisu réunion famille la ma bëgg nag réunion bi ñu tekk ci temps ak heure mu ànd ak kalm képp koo xam ne bëgg nga am parole bu bouton ma jox la sa parole nga wax li ngay wax li may njëkkee nag moo di. yow ma ñoq yow ak kombe mii. lan laa defoo dara waaye kombe. lan laa defal. kii waroo ko jàngal dong war a tax nga jël sa yar gu xiir gu saf topp ko di ko dàq ji ci kor kër gi jàpp ko fekk jóob tëdd nga ànd ak moom duma ko ci duma ci jóob mii duma yi metti loolu tegoo ko fenn. objection. boo ma rejeté ma toj sa lu bon de. objection nga ma rectifié. waaw booy doonu dimbali sa tànk bi nga mel ni batteeru super étoile bi ah? du ko dégg kat. booy bii bu ngi koy wax loo alfa laxu. alfa laxu alfa laxu la. alfa xattu. waaw mun ko koy wax loo. ñu milaar ñëpp. nu mënu koo wax. nu dàq ko nii ci gannaaw. muy daw laqadoo ci ndaay laqadoo ci siisi laqadoo ci palanteer lu dul fekk fa ma fa ma tëdd sama feebar mu ñëw ko sama kaw ba booy bi di ma dóor ci alfa est-ce que c'est normal. xaw ma si dara xaw ma si dara. muy yàq koor gi. xam nga lan la. li kii def ba ma dóor ko. yow mi sax soo ko defoon ma du la laa la wax. waaw wax na ci boppam moom moo mel noonu jàng xam-xam balaa muy dugg sa biir bopp bi faaw yar jaar sa kaw ndigg. xamoo dara alfa laxu alfa laxu lu ma neex laa koy waxee alfa laxu. la ma doon waxee woo ko fii. doo ma foofu. mu mel doomu Rick Hunter nii. nga mel doomu Colombo nii. mu mel doomu Rick Hunter. noppi waay kii. noppi noppi eh ma yow nga mel dëggat na ma ni bàyyi ma. mani ànd leen ak dal ngir yàlla. falaxu sax taxul nu ñuy wax ñun li ma intéressé man sonal ma lool nag ci biir kër gi mooy diggante Abibatu mii ak Jofal mii ndax ñaari couple ngeen nekkoon ñaari balance bu bi nee rëng benn rëng léegi nag bii danaan rëng benn ràjj taxaw ma bëgg ngeen rassembler waat kër gi te man xam naa li ci mbëggeel man vivre naa ko ah? vivre naa ko ndax man amoon naa jabar ñu divorcé mu dem ma dem. objection. rejeté. mooy objection. rejeté retenir retenir waaye yow bàyyi de retenir nag euh, waxtaan wi lu teewoon nga woo ba ma ñëw nga ne ma maay bit bi nga ne ma maay thème bi Touré koy conseil ci mariage Touré kañ nga gëj a sangu fajar Touré bu sa yére seetee dañ laa fóotal. Touré loo xam ci sëy foo nuy nettee lay bànneexu sëy nga ñett sa loos loo ci xam mbiri jabar xamoo ci dara ndax fo nu waxee nga di se naa amoon naa jabar Masamba Ndiaye ma xuja Ndiaye dara mënoo ma koo conseillé yow yow Touré mënoo maa conseillé man à petit la mariée li ñu war a wax mooy Abibatu mi duma moroomam jëkkër sang la na ma teg ci yoon loolu la ñu war a wax. waaw jëlal parole jëlal. tonton li ngeen fi wax yépp ci xalaat neex na jaadu na yàlla ànd na ci. yow kon da ngay dégg. waaye su ma sañoon kooru ren. du ñu def conférence. dañuy togg ay ñam yóbbu ci prison yi. prison kii bu yenoo jaar rëbës. kii yenu jaar dixième. yàlla na la dixième jàpp. xeetu yiw la yoo xam ne yàlla di mën nañu koo fay daal. yaa fi léegi góor salaamaaleykum. maaleykum salaam. yow la kon. dama réñoo demal ci biti. yaa ngi mel ni omeletu tu nii. Baye Diop mbaaru yaa fi andiwaat sa jabar. amiin mbaaru yaa fi andiwaat jabar xam nga daaw indi woon nga fi nii jabar. <laughs> booy booy mbaaru yow sa alfa loxo gi moo moo la jàpp. ma ni mi toog. Moustapha. xayaarul alamin. njol makka yaa leen gën.